tey suñ fi ñëwee dañ fi ñëw tamit nag pour jëmb ji toog si ginnaaw muy Abdoulaye Diouf Sarr di le candidat de la ville ñun ñu bokk si directoire de campagne de la ville ma nekk si pole communication wu ville bi di gérer pôle communication bu comité électoral bu Grand Yoff di Fatoumata ba jiite parti Union pour le développement du Sénégal renouveau nekk deuxième nag sur la liste proportionnelle monsieur le ministre dañuy wax ne sa daal dama koy wax di ko waxaat nous avons le meilleur profil pour Dakar nous avons le meilleur programme pour Dakar parce que nag moom ku ko xam-xam ni il incarne la paix jàmb moo ko tax a jóg xam nga nag ku gis nen danga nga naan nen a ngi mënuñu jël jëmb ji di Abdoulaye Diouf Sarr di ko tëkkale ak jëmb Barthélemy Diaz wax soo koy wax dangay wax li am tey man damay joxe exemple rek dama dem sama kër goro toog fa mag la xamul sax Abdoulaye Diouf Sarr ñu ne ko waa dakaar looy def ñu ne ñu jàmb la ñu bëgg te Diouf Sarr ku ko xam xam ko si yar xam ko si dal xam ko si liggéey soo gisee gestion Covid bi ni mu ko géré rek mu dem hissé le Sénégal au dans le monde foog naa ni kii ku ko jox dakaar lu ndaw la si moom donc damay wax askanu waa Grand Yoff génn leen le 23 janvier incha allahu rabbi jóg jël bulletin bu marron bi ñuy wax chocolat bi maire yi am na ñu ko xamul bulletin bu chocolat bi na fees dell si urne yi parce que nag ku bëgg ndakaaru jëm kanam ku bëgg ndakaaru ñu liggéey ko ku bëgg Dakar bu bees ak programme bu ambitieux foog naa ni ku ko dénk suñu camarade suñu mag jëmb ji toog Abdoulaye Diouf Sarr foog naa ne ndam la si askanu sénégalais waxuma askanu ndakaaru donc monsieur le ministre na sa xel daal jàppani de ñun ñii di say rakk di sa camarade ànd ak yow dinañ takku ba dëgër te saa su ne noonu lañ koy defee vote bi deux journées la commune bi Cheikh Bakhoum la dañ ko campagne ba suñu baat yi dee mais ville bi comme niñ koy waxee saa su ne rek Abdoulaye Diouf saar la donc na sa xel dal monsieur le ministre kontaan nañu lool. di gërëm nag toute la coalition Benno bi fi ñëw ah Moustapha Diémé mi ngi nii toog mooy le coordonnateur de la cité millionnaire APR la bokk Balde URD parti URD la bokk Ndeye Sané APR la bokk Mbaye Sène APR la bokk. Ibrahima Gueye PIT donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. may wax ne amuma lu ëpp fii parce que nag loolu lu wér la HLM Grand dafa bokk ci sama jëmm bi ma yegg si fii en 1991 yaakaar naa ne booba oto bu ma dawal aw ma ko woon bi may ñëw clando laa loué def ci sama ñetti chemise ak sama ñaari pantalon sama kër ñëw ubbi benn néeg dugal ko fa dem si koñ bi ñu daajal ma ay banc mooy banc yoo ñuy añee ma ñëw teg sama salon lem benn siyaara amaguma woon salon maam fay xarit yàlla na ko yàlla yërëm gën a góor gu ñu doon wax Cissokho mu ne woon fii kooku sama xarit loon mu daan yegg si ñuy waxtaan bu ma limee juum mais bu ma waxee Cissokho rek ngeen xam ne démb moo jur tey may am beaucoup de fierté parce que sama njaboot yëpp fii la ñu xam fii la ñu juddoo waa koñ bi ñu baax la ñu baax a baax a baax lañ waa jàkk ji ma leen di nuyu parce que boo ñëwee si jàkk ji nuyu waa jàkk ji bu baax am ñu bëri loo mu ngi fi ñoo bokk mënaanu wasifa bi maa moom di wasifa naasiril xaq bil xaq may kontaan bu baax a baax a baax nag si jeunesse bi ak si jigéen ñi faama jël na kàddu léegi maa ñaan sama borom mu yobbu sa yaay ju baax ji sa àjjana gën a kaw bi ma duggee sama kër moom laa ñëw seet ko mu jigéen ju baax di bëgg njaboot mu def ma comme doomam bon dëkk bu njabootam taxawee nii du ma bett may nuyu samay xarit ñu ñëw tout à l'heure forcé bi yàlla am lu mu leen teg ci wàllu kàddu mais ñu forcé na dañuy wax ma leen di nuyu ñoom samay xarit lañ Badou Sène moo ko sama doom ñoom maase mi ngi liggéey ministère de la santé ñooñ ñu baax lañ aussi comme li xaar mbay di wax ku leen juróon yërëm leen maa ngi leen di nuyu bu baax baax li ñu jëm nag ah wax dëgg yàlla dañ ma ko dénk ku ñu dénk nag boo sañee dem dénkaat ko ñi nga wóolu dénkaat ko say xarit dénkaat ko say mbokk dénkaat ko say yaay dénkaat ko say sœur dénkaat ko say frère loolu moo ma indi fii si Grand Yoff ma fekk fii la grande coalition Benno Bokk Yaakaar ma leen di remercier madame Ba dit à Cheikh que maa koy félicité su liggéey bu rafet bi ngeen def actuellement à Grand Yoff ba inverser totalement la tendance maa ngi leen si encouragé il nous reste quelques pour concrétiser définitivement notre victoire incha allah suñu borom danañu may ndam ici à Grand un peu partout Dakar et à la ville de Dakar président denk ma la ville de Dakar lu ma revenir sur le programme distribué nañ leen ko c'est Dakar bu bees pas Dakar bu bees parce que Dakar dafa newul woon mais Dakar bu bees parce que dafa am ñoo xamante ne en 2014 dañ leen ko jox ñu ne dañuy taxawu Dakar mais ñu seetlu ne 2014 au lieu ñu taxawu Dakar dañoo tardel Dakar ñun ñu gëm ne war nañu jël Dakar defaraat ko te Dakar ki koy defar dafa war a nekk dox loxo yu set. dafa war a nekk loxo yu am xam-xam dafa war a nekk aussi loxo yu am programme dafa war a nekk loxo yu am valeur loolu moo tax ñu ñëw fii ñu dëkk xamante ne suñu kër la wax ak suñuy mbokk wax ak suñu dëkkandoo te dëkkandoo mbokk la Seydina Mohamed sallallahu daf ne sax am na nu mu doon demee sax dëkkandoo mun a doon moo tax fii lu ma fi dal bu gars yi laa jógee Yoff di yegg samay dëkkandoo ñoo njëkk yegg si bon li ma dénk waa Yoff laa ñëw dénkaat leen ko rek jàppale leen ma pour que ma am une victoire écrasante aux HLM Grand Yoff loolu je compte sur vous le maa ngi lay remercier bu baax si dynamique bi xamante ne yëg naa ne mi ngi dox pour ngeen jàppale ma si loolu mais loolu la dëkkandoo mënal boppam ñëw naa fi keroog dans une activité hors politique jël une ambulance may ko le poste de santé avant-hier ñëw sans ak leen accompagner parce que bëgguma woon mu am lu mu luru mais loolu waa HLM Grand Yoff ñoo ko moom mais aussi dans les dix jours dans deux semaines Seydou euh, am nañu benn euh, donc euh, corbillard boo xamante ne jàpp ji lañ ko may dana ñëw au niveau de la de la mosquée mais bu leen def comme euh, bu leen def comme sama mbokk yi sama mbokk sama mbokk yoo parce que dama defar benn benn morgue fële si hôpital Philippe Senghor defar fa benn euh, centre de radiologie centre radiologie bi nag mu nekk centre bu rafet morgue bi dem nekk morgue boo xamante ne dernière génération sans dara jaroo je bi ma ne kañ lañ koy inauguré gars yi ñëw rapidement inauguré ko mais marge ba léegi inauguration kañ la nag daa leen may benn am benn benn corbillard bu ñëwee rek corbillard rek ambulance ñoo yem parce que kulu nax si saa yi xas noonu vraiment maa ngi leen di encouragé bu baax di leen wax ne jàppale leen ma pour que au 23 janvier 2022 que ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr est dixième maire. Et le deuxième maire de la capitale may wax ne demande naa mes amis malentendants ñu jël ñu jël euh, flyers yi jël bulletins yi def seen comité électoral dugal ma dans la cité campagnal ma parce que yéen yéen a war a tax ma gagné campagne. mais suñu suñu mag ñi dafa am lu ñu wax foofu laay suñu mag ñi dafa am lu ñu wax dem ànd ak seen ñoom troisième âge dafa am lu ñu wax lu am solo ma ànd ak moom bon nag plus d'intermédiaire entre ñun ak yéen il faut mu nekk une relation directe loolu moom yaakaar naa ne c'est une grande leçon que j'ai apprise te mbir yi bu ñëw il faut pas que mu am fu mu jaar door a yegg si yéen ñëw directement si yéen bon nag madame Thiam am na lu ma la lu ma la joxoon généralement bu may def proximité yi dama ñëw rek romb mais cri de suñu mag ñi ak ni ñu fi yàggee am na lu leen sama assistant di jox léegi mu nekk loo xamante ne mag ñi ñoo ko moom xale yi bokkuñ si maa ngi leen